mbooleem ñi fi teew leen di ñaanal jàmm ak salaam fekke ak tal ba bis ba di ñaanal Sidi Jaxate taxawaayam gën a yàgg suñu kanam ci barki Sëñ Tuuba waaw li may wax moom ki ngay bëreel ñëwul lan nga koy wax waaw ki may bëreel moom bu fekkee ñëwul moom jurul wax quoi jurul wax jurul wax non non bu fekkee jël na avance ñemewul jàkkaarloog ki muy bëreel jërul wax jërul wax moom. ah ndax lan jërul wax da nga koo xam. ah. mas ngeen daje ak moom. non mosu ñëw daje. waaye dama xam ne rek li ko dal ba ñemewul ñëw. Hmm. loolu moo ma dal ba duma wax ci moom. ba doo wax nan nga ko nar a def bu dimanche xam bu ko seetaanee si télé yi gis ko. waaw bu soobee yàlla bu arbi soufflé bu génnee suñ diggante. Hmm. dinaa xam ni ma koy def bu soobee yàlla. incha allahu rabbi. da koy duma ba pare soo ko bëree moom wala da koy duma ba mu toog. non boo bés ba rek bu fekkee ñëwal moom boo bés ba rek. kon ñan ñoo lay daggal bee ak lan ngay woo dëkk ba. waaw mais simno fagol séeréer mais simna fagol séeréer rawatina yoon wen mi mais gidma dina baax simna din layanin adam njom fele ka angeɗa roog mi jofnina rek roga ci a in ndam a ci ino wod fo xuul waaw maxey xooya mboolem ox gen na tundal Ngunjaan maxey xooyan xooya jaag xooye mbaaloox caleer mboolem cangaay mbiin yibra xurwa fop maxey xooya den laya den o ɓiy nun o ndeɓ nun o te jeg combat xooya nun la douze décembre na gara a felanga roogo yaal i maaf i ngaad ngunjaan mais ye xooya ka son defa ci man trop dafa ci man di magam Woye maa koy sant di leen gërëm Cheikh bi ma amee combat sama combat bu mujj bi yàlla xam na ne lu bari la ma defal lu bare bare bare man koy sant di ko gërëm mm-hmm. di ko wax combat amaat na nag na teewaat comme ni mu daan rek incha allah ñu jaaraat jàll incha allah ñibbiwaat bu njaan di woo monsieur le maire Mbaye Dione di di di woo Isma Tine Aliou Tine Alassane mi nga xamante ne moo ma yar maa ngi koy sant di ko gërëm di ñaanal yàlla mu bàyyi sama kanam ba lim namm ci man yàlla def ko di sant maire Wuri maire Wuri maire Wuri maa ngi bu baax baax maa ngi koy sama yaayu bopp la waaw di woo mboolem mairie Mbaye Dione maa ngi leen di woo ñoom Ibra Diop hélas ñun ñëpp maa ngi leen di woo di leen sant di leen gërëm jërëjëf. jërëjëf gërëm yóbbu ko waa Madaar gisee ak moom mu dem toog tegal micro boobu si suuf. waaw ba tey maa ngi sant sama sëriñ Serigne Cheikh Ndigal Sène. jërëjëf jërëjëf Fatou Loxus ana Djibi Diagne bu teseet mu doon combat boo xamante si ni ah ñu ko bëggoon bari nanu Fatou Loxus kaay Djibi jugal biram yóbbu leen zakkatu nufus ñu boole laa jibi jibi yëg si nii taxaw dama bëgg ngeen taxaw nag dama bëgg ngeen taxaw nii jibi taxawal nii caatu luxus taxaw nii caatu luxus dégg nga li mu la wax nee na da lay toog. asalaamaaleykum Abou ma sant ñi fi teew di leen ziar waa saa bi di sant su ko sama grand grand moo sonn na si man trop. waaw ay tawaay yàlla boo koy fay xolam quoi maa ngi bëggee ñëpp. di nuyuwaat sama église Diakhao dégg naa sama gars yi maa waa Mboro ma jóge bilaa walaay talaay tool ne nee na ah, kii yaay wayu mbër rek la wayu mbër loolu yàgg naa ko dégg du kii yàlla ak bu suuflee dama koy duma daan ko ma daan ko ndànk soo xëy ma duma ko ba mu waaj bilaa walaay talaay boo bëree woo sax

sama garaawaaw bu ñu am na ci lool ak suñu waa kii Martin Mbollo gars yi ñoom Bouba Fit ñoom Zahra gars yëpp maa leen di déggee ñoom Junge ah ñoom ko Dia di déggee sama garaaw bi Alpara di gërëm Asamba gars yëpp maa leen di déggee ah di nuyu gars yi képp ku fi mais peut-être dégg nga li mu la wax. Hmm. nee na doo toog kenn nee na pare woo pour toog kenn. kii da a pare pour xeex wala da nga pare pour bëre. merci borom Touba. Habib bu déggee suñu diggante. kuy ku yeel doo gis jël ku xëpp doo gis jël xam nga lan moo ci mu tudd Saalum rek moo tax dama ko ndox ndox yu métti mu tudd Saalum moo tax dama ko ndox ndox yu métti mais ko duma duma yoo xam ne boo dégg. dafa jaaxul micro bi. baax nee na la kon dina la dugg du may métti. dégg nag gàllaay walaay talaahi kii ñu yàlla xam naa ko daan daan laa koy daan mais soo xeexee ko kii du mag moom sax bilaay walaay kii ñu ngay bër bu bëree léegi ñan ngay woo ci waa Morok waa Mboro mu gën a mel Ibrahima Ciss maa ngi koy woo bu baax sonn na si gars yi ba saabu saa moo la amee su ma amee combat ay jàpp si gars yi bu baax jàpp si liggéey maa ngi woo Sade Diène sama gars woo ma gars bu pour la ziar naa bu baax di la woo maa ngi woo Mbène Amrouane di woo Daniel Mbène ba maa ngi woo amoon naa yëpp baax na kenn rajo technique la technologie maa ngi woo ñëpp di woo Diabo maa ngi woo furum ma wo wa kasa tilan kay jagal ma wo ñep sangal sambay karam ba kenna ma wo wa mulla ñep jërëjëf ma wo wa masami masu mawla ma do sam ma wo ñep ma wo wa ties wa jaaw sama gaay wo na la bu ba wa mbo ba kenna joxal joxal coow beur attention ñu yor pam balaw ba su ko béré taxawal taxawal c'est triste quoi rajo yi danoo bari waaw du woo waa Diobass yëpp du woo monsieur le maire Alioune Sarr taxawal waaw du woo waa Diobass yëpp du woo monsieur le maire Alioune Sarr mu ñëw jàpp ci combat yi ah, président Daouda Bouy di ko woo mu ñëw jàpp ci combat bi waa ak waa Kisan waa Kisan oo ma seen fay instant yi dañoo defar 257 17 yëpp jeex leen barki borom Touba oo ma seen fay waa Kisan dina xam ne jour ba doon téye bi du ko pour man la téye bi du mag man la maa ko garanti waaw di wax ne nag ku ku doo gis jël di woo waa Gisane di woo monsieur Abdou Karim Seck euh, waaw gis dem président Omar di ko ñëw jàpp ci combat bi mu ko doon defee di di sant waa Diobass ñu dëpp di Gisane tout sama mbokk séeréer maa ngi woo ñoom jën war na am combat di jaay dara xaar waaw du am combat ndax ne jaari ak tout ça waaw jërëjëf. jërëjëf waa Madar ana ngeen tegal ma boobu foofu.